الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك
فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول المولى في محكم التنزيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy birrul walidayn am teggin am yar ci ñaar ñooñu yàlla dénkaane muy ñaari way jur lu tax mooy benn dëj bu ñu fekke woon lu yàggul dara ci accident bi amoon autoroute ñenn ci ñi fa faatu woon yàlla dogal ñu fekke woon seen dëj dañu toog ci dëj bi toog ak ay mag nekk seen wet nu dégg nuy waxtaane seeni njaboot niñ leen sàgganee kenn ku nekk ci ñoom di wax yor ay doom yi ponkal yu ne lëng ci kër gi te duñu dimbali seeni waajur beneen bi gën a doy waar mooy benn waay bu tukki woon moom njabootam def loolu gaay naan sorti jël soxnaam ak ay doomam def ci oto ak lépp loo xam ne dinañ ko aajowoo ñu dem ba si tefesu géej gi ñu wàcc waa ji nee na bi ma wàccee samay bagage lal samay sajaada samp samay tànt maa ngi seet lu tolloog 30 mètres benn màgget bu jigéen mu ngi toog ci tefesu géej gi fa laa ko fekk nee na maag sama njaboot ñu yendu ci géej gi ba ngoon waaye sama xel mi ngi ci ku jigéen kooku ma fa fekk deux minutes yu nekk dinaa siggi xool waaye gisuma kenn ku taxaw ak moom wala ku toog ak moom waa ji nee na ma nekke ba noonu ba ngoon bay waaj a ñibbi ma ni waaw màggat bu jigéen bi moom lan mooy mbiram fii laa ko fekk gisuma mu lekk gisuma mu naan gisuma mu wax ak kenn xaaral ma dem laaj ko waa ji dox ba ci moom ne ko yaay booy lay def fii nga toog ne ko sama doom laay xaar ah alhamdulillah waa ji daal di dellu mais xelam dalul bi mu demee nag ba takk ay bagage am def ci oto bi war a ñibbi mu siggi xool ndaw si gisul kenn te doom ji muy xaar gisu ko waa ji delluwaat ñoo ne ko yaay booy looy xaar ko doom sama doom lay xaar mu ne sa doom fu mu dem mu ne moo ma wax ma xaar ko fii moo ngi ñëw léegi waa ji ne na fi may wax ak moom ma gis benn këyit bu nekk ci wetam ma ne ko këyit bi nag mu ne waawaa jërëjëf sax sama doom moo ne woon ku fi njëkk a ñëw naa ko jox mu jàng ko comme yow sax nag bismillah jàngal ma këyit gi waa ji daa di sëgg ci këyit gi daa di liir ndeke ndaw saa ngi bind doom jàng bind ci këyit ga ku ñëw fii na nga yóbbu maire bi maison de retraite nga yóbbul ma ko foofu bàyyi ko xoola kooku dafa sànni yaayam géej am doom nga yar ko ba mu mag doom ji amul lu mu lay fay mooy sànni ji la géej bàyyi laa benn këyit ku ñëw liir këyit bi na la jël yóbbu la maison de retraite loolu tey moo bëri ci biir dëkk bi ay ponkal ay xale yu góor yu ne lëng lëngaaral te duñu toppatoo seeni waajur rawatina nag ñenn ñi ciy liggéey weer du dee ba ñu indi la benn saakub ceeb wala benn potu café wala daggitu morso saabu wala ñu ne la pap dix mille yi jàpp ko nga yokk ko ci kër gi duñ la fayal courant duñ la fayal ndox duñ la fayal téléphone keroog ca waxtaan ba benn góor ga ma nga naan sama doom dàll quarante mille lay sol ngay sol dàll quarante mille bàyyi sa papa di xiif ak sa yaay mbokk yi alquran lan lañu jàngal wa qada rabbuk alla taabudu illa iya wa bil walidayni ihsanan ginnaaw bi yàlla paase ba dogalee moom yàlla ne moom dong lañ war a jaamu waruñoo jaamu kenn ku dul moom lan la ci yàlla teg wa bil walidayni ihsanan sa ñaari waajur lu rafet rek amul leneen rawatina yow ban la juree fan la war a juree toppatoo la sa lépp sa jàng sa wér sa tout ñoom ñaar ñu dem ba mënatuñu comme yow bi ngay judd ni nga tëlee woon nga waroon fay bor bi waaye nga wane ñàkk jom comme tey xale yi ni ñu ko wanee nekk ak seeni way jur daf leen ni moroom kenn du ci toppatoo way juram bu góor ak bu jigéen di lekk ci restaurant yeeg fast food yeeg may ga yi bàyyi sa waa kër ñuy fande est-ce que noonu la góor gi defoon borom bi nee na rawatina nag imma yablughanna indaka al kibar ahaduhuma aw kilahuma rawatina nag ñoom ñaar buñ demee ba mag wala kenn ci ñoom ñaar ngallawaay wala taqul lahuma uffin baat boobu moo gën a tuuti mbokk julit yi qissa bi ñu wax léegi la tazunnu hadihi alqissa xiyaaliya wallahi fi lbuyuti azamu min zalik histoire bi ñu wax léegi ki am baay ki am ndey yóbbu ko ba tefesu géej sànni ko fa dem yoonam bàyyi ko këyit kenn yaakaar ne ay léeb la ak léppoon ci sunu biir kër yi am na histoire yu gën a dangereux yooyu ñaatoon ngay dégg fii ci rajo bi ku rey baayam ñaatoon ngay dégg ku rey yaayam ñaatoon ngay dégg ku dóor papaam amoon na fii ci buntu police bi fii ci croisement bi fii ci préfecture benn waaye bu daan direeku di def yaramu neen dama laajte ay mbiram nañ ma ne kii dafa dóor papaam waaw su nit dóoree papaam nag li gën a néew ci moom mooy mooy mu torox àdduna balaa muy torox alaaxira mbokk yi ndeke way jur yi ay ndénkaane lañ góor ak jigéen ndénkaane bu nu yàlla dénk la wa wasayna al insaana bi walidayhi yàlla nee na maa dénkaane ñaari way jur allahu akbar nañu dox lu gaaw ñu xool qisasul anbiya ñu xool yonent yi ñoom ñoo gën a baax ñu xool ñoom ndeysaan naka lañ nekkee woon ak seeni wayjur yonent yi de waxuma cumb cumbur yi yonent yi hada nuh alayhi salaam yad'u lil walidayni wa yaqulu rabbi ighfir li lu mu ci teg wa li walidayya wa liman daxala bayti baytiya mu'minan xoolal nuh ci alquran yàlla nee na nuh bu mu dalalee yàlla ay loxoom bam ne yàlla jéggal ma ku mu ci teg ñaari way juróom mu doog a ñaanal julliti nuh alayhi salaam daaiya ulul azmi min ar-rusul bal saykhul mursalin rajulu salih wa ma dhalik kana min ud'iyatihi ad-du'a lil walidayni xoolal nu ni mu baaxee bal mooy patron mooy sëriñu yonent yi ndax moo leen mag waaye tarawul gis nga mu bokka boole ci ay ñaanam ñaari wëy juróom ba mu yëkkatee yàllaay loxoom lu mu wax rabbi xfir li wali walidayya kooku mooy nuux alayhi salaam ibrahim waliduhu mushrik fa maada kaana yastaxdimu ibrahim alayhi salaam ma hiya al alfaz allati kaana yastaxdimuha maa walidihi wa huwa mushrik taamal fi surati maryam taamal ya axi ya man yuaani min walidayhi min baadi almashakil aw baadu alxilafat baynahu wa bayna walidi bokk julli ibrahima baayam bokkaalekat la woon waaye bokkaalekat laa wax mais déglu leen baat yi ibrahima di utiliser digganteem ak baayam léeg-léeg nga gis kenn ci xale yi dund diine ne non sama papa bidaa man la quoi non paa bi ay bidaa rek lay dóor quoi ndeysaan yow moomu ak ki naan sama papa mushrik la ak ki naan ak kër gi ay jaahil lañ quoi yow moomu déglul Ibrahima baayam bokkaalekat la waaye déglul baat yi mu utiliser digganteem ak baayam demal ci suratu Maryam bu la ko kenn nettali ngaw bi téere bi nga xool yow mi am problème boobu nga gis ibrahim ma ngay woo bàyyi ji xoolal waxu ko e pa li xale yi di wax tey te ko ne yaa abati e yow bàyyi booyi allahu akbar laa taabudu shaytan ey bàyyi booyi yaa abati la ko wax wax ko sax yaa abi yéen ñi jàng arab xam ngeen ne différence yaa abati ak yaa abi yaa abati hunaka nidaau lutf min hadha nida hadhihi alibara يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الله أكبر باي باي البوكالة ndax ragal naa boo bàyyiwul bokkaale baay boy mbugalum yàlla dina dal sa kaw ibrahima yemul ci loolu bal baay ji dee sax nekk bokkaale kat mu ne ko dinaa la jéggalul yàlla pour yàlla baal la kañ la ko ko yàlla tere mooy bi mu yëkkati ay loxoom bugg a ñaan yàlla ne ko ibrahima bul ko ñaanal parce que bokkaale kat la waaye bu ko yàlla terewul woon mu ñaan ngalawaay kon ñun ñi nga xam ne suñuy baay ay jullit lañ ngalawaay ñu nag ñi nga xam ne suñuy baay ay nitu diine lañ ñun ñu judd ci islam fekk suñuy baay nekk ay jullit ibrahima moom baayam nekk mushrik mu jaar ak moom fii bal ba baay ji dee mu suul ko bu koo ñaanal yàlla dog koo tere ah nañ jël ismail di nga ne ibrahima bi muy def loolu paa la kon nag nañ jël ismail moom it ñu xool ibrahima ismail ak baayam wa ismail alayhi salaam yufaaja bi yawmin min al ayam ida bi walidayhi ibrahim yaqulu lahu ya bunay inni ara fi lmanami anni azbahuk ibrahima am na doom ju tudd ismail ba doom ju amee ñeen fukki at ibrahima bett ko benn bis rek ne ko doom gis naa ci sama gént dama la war a rey ay paa bu ko waxoon tey sa doom moom xam nga lu mu lay tontu xam nga lan ay baay moo fi jeex ay papa yooyoo fi jeex tey loolu la xale yu góor yi di wax tey ku taxaw papaam naan ko ay papa moo fi jeex ay père yooyu yooyoo fi jeex laa wax su fi papa jeexee lu fi dund lu fi am mooy lii ñu gis rek ay xale yu góor yoo xam ne kenn xamul ak ay xale yu jigéen kenn xamul lu ay lan lañ waaye nag du mbetteel ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoon na ci màndarga axiru zaman muy waxtaan wi muy war a def dimas yonent bi joxoon na ci màndarga ne yazhabu salihun bokk na ci màndarga axiru zaman zihabu salihun wa yabqa fi l ardi xafaala ka xafaalati sair aw tamr la yubalihim llahu balan rawahu buxaari sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam nee na buñ demee ba àddina di waaj a jeex ñu baax ñi dañ fiy jóge lan moo fi des ay xottu gerte ay xott mooy li ngeen di gis léegi ay góor ñoo xam ne kenn xamul góor lañ ay jigéen ñoo xam ne kenn xamul jigéen lañ ay nit ñoo xam ne solatuñu yëre ay nit ñoo xam ne même seen mentalité suñu waxee nga yi- nga yéemu ndeysaan nga gis ponkal su waxee nga xeeb ko mooy ay xott moo fi des ay xott da ngay gis nit ñi amatuñu benn valeur nit ci boppam moo amul dundam moo amatul njëriñ loolu dafa bokk ci màndarga yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe woon mbokk yi ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala moonu dénk sunuy way jur ismaila ngi nii bi mu nekkee xale bu góor toll ci digg ndawam la ko baayam woo ne ko gis naa ci sama gént malay rey waaye xoolal doom ji ana ban tontu la tontu baayam ndeysaan ndax tey doomi tey loolu la ñuy tontu yaa abati fa'al ma tu'mar sa tajiduni insha allah min as-sabirin ay baay waaw loolu ndax jar na tàggoo buur bu tol ne yàlla jox la ndigal nang ma rey ndax loolu jar na nga may tàggu defal li la yàlla sant di nga fekk di nga ma fekk insha allah may aji muñ kooku ismail la mbokk yi rombal ñooñu ñëwal ci isa alayhi salaam keroog ba mu juddoo lan la wax salaamun alayya wa barran yàlla moo nu ko nettali subhanahu wa taala mu ne qaala taala wa barram bi waliday wa lam yakun jabbaran asiya li nga isa mu ne yàlla maa ngi lay ñaan ma ne ku baax ku mokk ku déggal sama way jur kon li mooy qisasul ambiya yonent yi nii lañ meloon ci seeni ñaari way jur dégg ngeen sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam tàggu na yàlla tabaraka wa taala dem ziyaara ji bàmmeelu way juram bal sax dem na bay tàllal loxo di leen ñaanal ñu tere ko comme niñ tere woon ibrahim kon doomu ndey yi mbokk julit yi way jur ndénkaane la bu yàlla dénkaane sunu borom nee na ci quraan ñoom ñaar buñ demee ba mag wala ñuy bëgg a mag bu leen gëdd bu leen arsale bul yëkkati mbagg ci seen wet wa qul lahuma qawlan karima na nga leen wax rek wax ju nooy foo toll wax ju nooy bal sax wàcceel say mbagg na nga toroxlu ci ñoom bal sax na nga leen ñaanal na nga wax rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira foo toll na nga leen ñaanal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg na aljanna mu dégg ay tànk di xuus xuusi ay tànk di folote mu ne lii lan la ñu ne ko tànk diw kenn ci sahaaba yi ndeysaan yaay Aysa moo nettali xadiis bi waa jooju lu ko may loolu mooy ku déggaloon way juróom la woon loolu moo ko may mu dugg aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na aljanna taxta aqdaami al ummahat wa fi riwaya rida llah fi rida alwalidain wa suxti llah wa saxatu llah fi saxati alwalidain aqulu ma tasmacuun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وروى أهل السنة إلا الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان الله أكبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأدهكهما كما أبكيتهما wallahi war nañ xoolaat suñu bopp moo tax keroog ba nu dundee ba nu dummooyoo diine ji dummooyu alquran ak sunna keroog la nu alku moo tax musiba la nga jàpp ne mën naa topp keneen ba baax xoolal da ngay gis ku bàyyi ndeyam ak baayam topp benn sëriñ su ndeyam ak baayam demee jëli ko sax mu lànk am na fi sax ñoo xam dañ leen di maye ay jigéen yoo xam ne seen ndey ak seen baay duñ ko yëg xoolal ñàkk a teggin googu xoolal reewande googu xoolal ñàkk kersa googu nga dugg sa ndey ak sa baay topp la waa jooju gis la balay maye wala kooku gis la balay bëgg di la takk su la sa ndey ak sa baay toppatoo wuloon ba nga toll foofu est-ce que kooku dina la gis bu bëgg la bala bala ba waa ji di la maye ñàkk teggi nag ñàkk kersa weesuwul lool ñëw na ci ahlu sunan ba mu des imaamu tirmisi hadis bi abdullahi ibnu amr ibnu aas moo ko solo moo ko génne nee na benn waay ñëw na ci yonent yàlla muhammad ne ko jituka ubaayi uka damaa ñëw pour jaayanteeg yow pour gàddaay waaye day yonent ba may génn kër ga maa ngi bàyyi sama ndey ak sama baay ñoo nga yuuxu di jooy ndax xëy na li ma bëgg a def neexu leen moo tax ña ngay jooy yonent bi ne ko dellul soo demee nga kontaan loo leen ba ñu reetaan comme ni ñu jooyee dellul xoolal ñun tey balaa ngay kontaan ne paa bi dama naan tat wa xoraay tat laay def wa xoraay yow bi nga nee cocc mun a wax raay ngay na nga naan tat wax raay paa bi dama naan tat wax ko dëgg dama naan tat mooy damay màndi damay màndi wax paa bi dëgg mbokk yi am na ñoo xam ne ba ñu ne nit njaay nit njaay lañ mënuñu wax dëgg rawatina nag boo màndee ñëw na ci imam ahmad ci musnadam ibnu maaja moo ko solo moo moom baadi hadis bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waay ñëw na ne ko damay dem jihaad fa amarahu an yarji wa yubarra ummuhu yonent damaa bëgg a dem jihaad mu ne ko ana sa ndey ak sa baay mu ne ko ñu ngi kër ga mu ne demal nga jihaad ci ñoom ñaar kon ñun ñu bàyyi sunuy way jur topp ñu kenn xamul dangay gis sax ku bàyyi bàmmeelu baayam di tabax bàmmeelu baayu jàmbur di ci def ay milliards fekk moom boo demee bàmmeelu baayam sindax yaa ngi koy gas sindax yi ña nga koy gas loolu amul benn importance nit ab jullit day dégg santaane yàlla bi yàlla santaane ci moom mooy mu liggéeyal ndeyam ak baayam ginnaaw ndey ak baayi amutul keneen wa saha an rasulillahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qaal salaasatun laa yanzuru allahu ilayhim yawma alqiyama alaaq liwalidayhi walmaratu almutarajjila almutashabbiha birrijal wa dayus yeneen di bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti nit yàlla du leen xool yowmal qiyaam ñetti ñii laa yanzuru llahu ilayhim yàlla du leen xool ku yàlla xoolul alku nga ku yàlla xoolul texee di nga wallahi jahannama nga jëm yonent bi nee na ñii yàlla du leen xool yowmal qiyaam lan lañ def ba yàlla du leen xool kenn ki dafay dënge ñaari way juróom ndeyam ak baayam la def moroom waaw ñooñu lay toroxal ñooñu lay jànni ñooñu lay xeexal ñooñu lay xulool ak maratul mutarajji la ak jigéen juy tambaambalu xam ne dafa sol yérey góor sol pantalon dangal génne yaramam ci biti wal maratul mutarajji la almutashabbiha birrijal jigéen juy tamaambalu def yaramu neen yor yërey góor yonent bi nee na yàlla du la xool wa dayuus kookoy kan allazi yarda alxubusa fi ahli wa fi riwaya allazi yaqirru su min ahli mooy borom kër goo xam ne waa këram bu ñuy def lu bon mu ne ay xale lañ bu ñu màggee yàlla baal leen wala borom kër goo xam ne mooy dem jëli lu bon li indi ci biir kër gi ne def leen lu bon ay xale ngeen yonent bi nee na ñett ñii yàlla du leen xool wa fi riwaya wa salaasatun laa yadxuluuna aljanna al aqu li walidayhi wa mudminu lxar xamr walmannaan bima aata ahmad soloo na ko xaakim ak nisaai sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam nee na ñett ñi duñ dugg àjjana ñu ne kan ak kan mu ne kuy dënge sa ñaari way jur ak naankatu sàngara ak ki nga xam ne li ko yàlla may du ci joxe ñett ñii yonent bi nee na duñ dugg àjjana ñëw na ci riwaaya imam ahmad muaz nettali hadis bi mu ne awsaani rasul allah sallallahu alayhi wa sallam bi asara kalimat qala la tushrik billahi shay'an muaz nee na man de yonent bi alayhi salatu wasalaam dénk na ma fukki baat ñu ne ko bu ci njëkk mu ne yonent bi nee na bu ma bokkaale yàlla ban moo ci mucc naa déggal samay ñaari way jur mbokk jullit yi kon mbir yi du lu ñuy romb nii rek dafa ne ëllëg yowmal xiyaam duñ taxaw ci kanamu yàlla ndénkaane gi yàlla dénkoon ñu ñu war ko layi sunu digganteeg sunu boroom kon way jur du moroom way jur dañ koy toppatoo way jur dañoo war a un ngërëmam way jur dañoo war a un ñaanam way jur dañoo war a ut kontanteem ndeysaan dañu wane benn waaye ci benn image mu ngi ci facebook bi waa ji di yëg ci ay escalier di dem ci fu kawe bi mu ñëwee ba fi mu war a yeggee ndeke diggante bi dafa am fu dagg moom yëgu ko bi mu tegee tànkam bëgg a pëttaxliku ñu wane benn loxo bu ko téye mu nekk du'aul walidayn mu dëgg ci loxo bi daal di jéggi kooku kon bu amuloon du aawul waalidayni lu muy def day pëttaxu daa di dee ne ko gis ngeen ñaanu way jur noonu lay def daf lay topp jàng ngeen ci hadis benn xale bu góor bu feebar sukuraat di waaj a dee yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëw ci moom ne ko waxal laa ilaha illa allah mu ne mënuma ko wax yonent bi ne waxal laa ilaha illa allah mu ne munuma ko wax yonent bi ne kii ndax xam ngeen ko sahaaba yi ne waaw xam nañ ko kay mu ne ndax yaayam a ngi dund ñu ne waaw mu ne dem leen ngeen wool ma ko yaayam ñëw mu ne ko xam nga kii mu ne waaw xam naa ko kay kii lan ngeen bokk mu ne sama doom la waaw xanaa yéen ñaar da ngeen am problème mu ne waaw dañoo am problème lan mooy seen problème mu ne dafa jëloon jabaram teg sama kaw dafa jëloon jabaram teg sama kaw yéen ñaam ay jabar uti ay appartement bàyyi seen i ndeeg seen bàyyi est-ce que bi ñu leen juree seen papa daf leen tëral dem uti appartement ne kii day jooy guddi du ma nelaw ak mën a jooy guddi est-ce que sunuy bàyyi biñ ñu juree ñu leen di sonal dañ ñoo tëral ci fañ ñu juree daa dem uti appartement ne ñii dañoo lakkale allahu akbar yaa ngi ñoom buy taw yaa ngi ñoom bu tàngee yaa ngi ñoom bu seddee yaa ngi ñoom boo feebaree yaa ngi ñoom boo xiifee yaa ngi ñoom boo maree yaa ngi ñoom boo raflee tey nga am di loué ji appartement naan non maire bi dafa bëri problème quoi non pas bi da ngay waaru quoi da ngay maar quoi bant bi ne waa ji ndaw si kii sa doom la mu ne waaw luy sa problème ba jëloon jabaram teg sama kaw léegi nag yonent bi ne ko day dee de te bu dee safara la jëm baal ko mu ne baaluma ko kii duma ko baal yonent bi ne comme baaloo ko te yàlla daf koo war a lakki bilaal mu ne ah mu ne jógal ngeen utal ma ay mat ma lakk waa ji ndax safara adduna moo gën a oyof safara àllaaxira gaa yi dem uti ay matt ñu ñëw taal matt yi ndaw saa ngi toog waajaa ngi tëdd ba matt yi takk yonent bi ne waa gaa yi jël leen ko dugal ko rek ndaw si ne eh taxaw leen yonent loo bëgg a def nii ne dama koy lekk mu ne waa baal naa ko gis ngeen yaay baal naa ko yonent bi ne waa ji waxal laa ilaha illallah mu ne laa ilaha illallah daal di génn àdduna way jur du moroom musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa sallam khutba hande khutba men hande wonno birrul walidayni woni ɗigganen ɗigganen moƴƴenen jinnaɓe meɗen allahu subhanahu wa taala o waɗi ɗum wona wasiye makko e alqur'anul karim o wi wa wasayna al insana bi walidayhi mi resndi ɓi adama jinnaɓe makko ɗiɗo o wi wa qada rabbuka an la tabudu illa iya wa bilwalidayni ihsanan caggal min allah nde ɓennumi mi yamiri ɓi adama yo moƴƴin fanude fanade e jinnaɓe makko ɗiɗo bam makko e nene makko kono asen ƴeewi hannde renndo men en taway sukaaɓe ɓe bal sah e mawɓe hay gooto jooni natti toppitaade yummum e baa mum so a dañii tan ko miijotoɗa debbo jooɗɗo oto jooɗɗo appartement goppa nene ma e bamma ɗum ɗon wona diine nelaaɗo sallllahu alih wa sallam o yamirii neɗɗo yo ɗiggan jinnaɓe makko ɗiɗo waaji gooto o yalti kanko e ɓesngu makko o fayi maayo o ari o tellini kaake makko o yi debbo gooto no jooɗi bange oyo kanko to no tawi debbo o o ñalli haa heeri omo rutto galle makko o yi debbo o hay gooto arani e mum ñaamaani yaraani o huli woppude mo to ladde to o ari haa e makko o wimo an ko mbatta ɗo o wimo ko ɓiyam ɓingelam fadanmi ina ara o yehi o ruttiti o wimo an moko mbatta ɗo ko ɓiyam ɓingelam fadanmi ma aranam o yi kayit ɗinane sara debbo o ƴetti kayit o wimo mi ƴeewa kayit o o ƴetti oɗon gandi kayit o ko winda hen ɓe mbi an garɗo e debbo o aɗa janga kayit o sa jangi ha gayni nawmo maison de retraite yeddoyomo ladde par ce que neɗɗo ina weddo junniyaɓe makko ɗiɗo est ce que jinnaɓe maɗe nde ɓe jiminma nde ɓe beddimama est ce que soɓe beddinomama hande ɗo jettiɗa ɗo ma yetto ɗon hande ko mbawɗa ko ma waw ɗum allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ij'alna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allahu Akbar